bàyyi woote. non bu dul sa non non amul bàyyi dañoo. Vamos, Mazal! Sall woon Sall. Babacar Babacar. Ndiaye. Ndiaye Ndiaye. Pape Thiam. waaw. indi ay faiblard amul ay dara amul ay responsable non non benn nit mënu ko yàq mais tamit duñu leen bàyyi fii ngeen dóor non non kii duñu leen ko bàyyi ngeen dóor mais collègue non kii seen camarade mais mën na ki mën ngeen ko génne mais duñ ko bàyyi ngeen koy membale loolu noonu tamit non non il faut pare ba koo yàq nag. yéen kii li mu bëgg a bañ a war a yàqal seen bopp. bu leer caméra yi